bari maanaam transport routier bi waaye tamit lu jëm ci wàllum transport aérien bi loolee tamit des na lu bare bari moom njiitu réew mi di président Macky Sall ñu fekk ko ci journal bi di Libération ak Le Soleil démb daan nay tontu ñi nga xam ne ñooy ŋàññi lu jëm ci wàllum ter bi ak coow li nga xam ne am na ci moom Macky daan nay wax ne piccog mbaaloo gi nga xam ne ñoo ngi koy wax ci teer bi loolee waxi picc la waxi ko daanu sib saret la ndax réewum Sénégal ñoom ñoo jël sunu xaalis ñoo financé teer bi te ñoom moom teer bi te nag ji nga xam ne ñenn ñi ñoo ngi liggéey am na ci ñoo xam ne ñoom ŋàññi rek la ñu dëkkee te nag lii jëmaliwul fenn Afrique Afrique moom président Macky Sall ci journal bi de la Soleil ak Rewmi Quotidien ak Libération nee na Afrique am na lépp ngir daal di suqaliku ba du ñee benn continent yéen kaay gi de la Témoin bàyyi mbir moomee wax ci xaalisu Covid 19 bi nga xam ne ba léegi coow laa ngi fi pënd bi wureeku la ndax xam ngeen ne am na rapport boo xam ne Cour des comptes moo ko defoon ci fond Covid 19 bi waaye nag ba muy tulee beneen coow dina ci juddoo ndax Cheikh Tidiane Youma ma ngi wax benn détournement boo xam ne toll na ci 17 milliards ci fond Covid 19 yi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien ak Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko démb la woon seen atte bi maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne mooy avocat bu Ousmane Sonko nee na atte bi maanaam ci bi la ko yëgee te moom maître Ciré Clédor Ly nee na am na lenn loo xam ne jar na ñu koy leeral ndax bu ñu jàppee ab procès dañuy wax ki nga xam ne moom la ñu war a atte nekk bi sàngam la ñu ko jàpp waaye tamit téréwul danañu ko war a yóbbul ab convocation convocation boobee nag la Ousmane Sonko wax ne jotu ko mambay ñaane garde korom la ko jox yéene kaay gi nee na mambay ñaan démb dafa xëy suba teel dem ca tribunalum Dakar Ousmane Sonko moom tim xëy suba teel jël ab balam di wër mbedd cité kër góor gi yi ànd akub délégation ma yéen kaay gi ne na Dakaaru Ndiaye jël Jóob démb fees na dell ak i takk dera gi de ñu fekk fa Mamba Niang nee na Ousmane Sonko ak ñàkk wuy ji gi nga xam ne ñàkk na ko wuy si yoon loole rek mooy firndeel ne Ousmane Sonko respecté wul bi yéen kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa ñi xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi dëkk ca diwaanu Maatama maanaam waa Pastef Maatama ñoom nag nee nañu lu gudd gàtt daal Ousmane Sonko amul kenn koo xam ne dina ko nee na élection yooyu nag am na lu ci lëndama ndax jamono ji ba léegi gisuguñu benn décret boo xam ne Macky Sall daan na koy signé ngir nag fixé li nga xam ne mooy datu élection yi te heure bi daana fekk maanaam ñu jàpp élection yi bu yàgg-yàgg ñàkk jàpp gi nga xam ne ñàkk nañu ko jàpp élection yi loole nag bëri na loo xam ne daan na koy bloqué ci processus électoral bi ndax élection yi bu ñu ko jàppul du ñu mën def li nga xam ne mooy révision liste électorale yi te nag ci atum bi nee na maître Abdoulaye Wade dafa teel li nga xam ne maanaam mooy élection yi daal di bind ab décret daal di koy génne ndax élection présidentielle 2012 maanaam ca 2010 ba sénégalais yëpp xamoon nañu ban date la ñuy def élection yi maanaam 15 mois avant élection présidentielle 2012 sénégalais yëpp xamoon nañ date ba ci élection présidentielle 2019 Macky ma ngi signé woon bi fixé élection yi 22 janvier 2018 élection présidentielle 2019 ñoo ngi dëgmal ay élection te ba léegi nii amul kenn koo xam ne mën na laa wax date bi nga xam ne moom la amal élection yi te nag maanaam xamaguñ ci lenn yéen kaay gi du l'observateur nee na mbiri Khalifa Ababacar Sall ak mbiri Karim Wade léegi tey gars yi xam si lu leer naññee ndax ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci mi di Ismaïla Madior Fall daan nay wax Macky Sall wi nga xam ne fa lay jaar ngir am na see Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall maanaam ministre bi saytu na ko ba pare Macky Sall jamono ji nag moo yër cëggul ku yama yéen kaay gi di réew ko di jeen nee na imaamu Grand di Cheikh bi nga xam ne la ko ay mbokkam gisutoona démb gis nañu ko waaye gise wuñu ko ak bakkana ci bassin rétention doon dakab taas fa la ñu ko fekk mu daal di ñàkk bakkanam yéen kaay gi nee altine ji nga xam ne moom la ñu génn ginnaaw bi mu julee tàkkusaana la dem ci marché Grand Yoff am benn mbokkam bu mu fa doon seeti yéen kaay gi nag ñi nga xam ne ñuy waa ñoo def géolocalisation xam ne ma ci wetu bassin bi si la ñu ko seet daal koy gis yéen kaay gi nee na ubbi nañu cib enquête libération yéen kaay li nga xam ne jamono ji moom la ñuy xaara mooy autopsie bi waaye nag li nga xam ne ne nemmeeku nañ ne dañu ko ko fitnaal maanaam dañu ko